asalaamaaleykum wa rahmatullah kilifa yi ñu leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu te di leen baalaax di am mbégte bu baax tey sant yàlla di julli ci bi sallallahu taala wa sallam sant Serigne Touba Khadim Rasoul ñu ngi leen di nuyu te leen siyaare di leen baalu àq leen baalaax di am ndigal loo xamante ni bi mi ngi jóge ci Serigne Mountakha Bassirou mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba Khadim Rasoul jaar ci sëriñ Ahmadou Makhtar Mbacke mi nga xam ne moo fi sëriñ Modou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara agsi ci sëriñ Moustapha mii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di Cheikh Sidil Mukhtar wàcc ci sëriñ Abdoul Karim mi nga xam ne mooy sëriñ Abdoul Aziz baara wàcc ci sëriñ Abdoul Aziz mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Moustapha Abdoul Aziz Bara am ci daara yooyu nag joo xam ne nii dafa pare mu nekkee fii ci héliport bi ñu tuddee ko Jannat Salaam wala ñu koy wax alam ñu fa yéene ko bi bi ñu ko jébbalee Serigne Mountakha Bassirou ba pare mu amaat ndigal de joxaat ñu ko ñu fa yéene ko tuddal tuddee maam Asta Walo Mbàkke way juru soxna jaara njukkale ko soxna waalam Serigne Saliou yàlla dogal nag tawféex ju toll ne Serigne Sidul Muxtaar moo ko tàmbali woon Serigne Modou Moustapha moo ko àggale te moo koy tudd daara jii ñu tuddi daaru tansil Serigne Saliou Mbacke moo ñu ko tuddee xidmatul xadim sànni woon ci kàddu ñaanal ñu ci ko li ci Serigne Mountakha wax bu yàggut ñaanal ci moo tax tey ñu ñëw ci kanamu Cheikh Mouhamad Lamine Baara Serigne Moustapha bëgg timin mu ñaanal ñu ci ci ubbite gi ak teewe ko ak taxawaay bi ndax way juram Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke moo ko moo ci joxe woon ndigal taxaw cee taxawaay bu wér ndax amoon nañ ci ay jafe-jafe ndax pàkk boobu yumbut woon bi liggéey boobu àggee nag moom mii la fi fekk ak sëriñ Muntaxa Basiiru ñaan yàlla àggale seeni mebet ak serigne Ahmadou Mokhtar Mbacke ak xalif sa daarul Xuddoos ki nga xamne moko fi teewal tay di serigne Ousmane Mbacke mom serigne Cheikh gayna Fatma kon ñu jox serigne mustapha mu sànni ay cadeau ñaanal ñu ci bis bobu le 20 octobre ñu fassiyene ko ubbi tari bi nga xamne daan nañ ko def at mu jot ren dañ ko fassiyene def ci bis booba boole kook ubbite daara dara jojje fassiyene ko defé ci barab bobu serigne bi bismillah alaykum wa rahmatullah yéen mbokk yi mbokki taalibe yi. mbokki taalibe yi. kenn ku nekk. ñoo ngi lay nuyu ci sa tur. ak saw sant. fekk la fa nga toog. jo def nuyoo ba ca war. di ñaan itam nga nungul ñu ko. mi ngi leen di siyaare. ca di leen balu xàq. ginnaaw loolu. wax kàddu yu gàtt rek. liko tax di gàtt. moy xol bu sedd. ak rafet njort. lamiñu ne setut ci xol bi fessna dina wax seigne Cheikh Thioro mu agalel ko li ci dess mu xamni tay ji dal ngeen xamni seigne bara begna seigne Touba begna na tabi sallallahu alaihi wasallam begna ne seen bég rek mo ñi jariñ nak ne ñoom ñëpp leer nañu ko di bég nañ tey. Cheikh Mawlid Bara ci daara ji nga xam ni li ñuy tuddee daara moderne yi président Macky Sall doon defaloon sëriñ bi ci Touba. ndax lépp ci suñu kanam la. kere bi ñuy def conseil des ministres décentralisé man Abdou Lahad Ka bi yabaloon. bi ñu demee ci wàllu éducation. bokk na ci liñ bindoon. ci conseil des ministères boobu ministre euh, nu bi conseil de ministres bi ñeenti daara yoo xam ne Cheikh Sidi sàkku woon na ko ngir ñu def ko Touba mu nga ñëw fa sàkku ci moom ndigal ànd ak ñi nga àndaloon ñëpp ñu état bi yabaloon ci jamono jooju ñu tàmbali ko mu àgg tey euh, ñu war ko ubbi ñaar fukki fan ci weeru octobre sëñ Moustapha wax ni lépp sëriñ bi wante dara génn ko ci kon muy sakku ci ñepp ñu fekk ubbite école bobé te buñ né dara itam jang moo tax ñu tabax ko jàng moo tax ñu wax dara kon wajur yi nga xamni dañu fa jige ñu fa seeni njabot yobbu ko fa nga ñu man fa jangé ta xamni dëkk bi di Touba dara la bi borom di sos jang rek taxat mu sos ko ak tarbiya ak tarfiya ak tasfiya ak jaamu yalla kon nag mi ngi sakku ci ñëpp ñu and ci ak Mame mambaray bi nga xamni ci ndigal rek la ma a nek ndax ñoo ngi fàttaliku am nga benn bis am ñu ñew ni la dañu bëggoon jël ña fay di leen fayal enseignant ya nga ñew taggu sëriñ bi laaj ko ci ndigal sëriñ bi la wax ni defal na nga doon def nga ni kon ma ngi jéglu sax wax gi mako wax kon ma ngi continuer ci dama daan def kon sëñ Moustapha wax ni ndigal moko ko ci nga nekkoon te mosoo jóg ci ndigal kon mi la sant di ci gërëm di ko ànd ak yow di ñaan yàlla suñu borom defal ci tawfeex bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam jërëjëf. mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziare ci ndéglul sëriñ Ahmadou Makhtar lii nag tey nga xam ne mooy woote bi. jëm ci daara yi te sëriñ Maam Baara mii jiite ko lépp taxaw taxaw taxawee ci ndigal sëriñ bi wax ne ànd na ci ak ñoom àndeen wu rafet di ko rafet rafetlu te xam ne kenn ku nekk ci ñoom la waroon sëriñ Touba sëñ Seydi Maxtaar digal digle ko sabab lu ko mu am ñu teg ko ci sa loxo nee ne kon njabootu sëñ Touba gépp nga fa nekkal daara yi daara yi sëriñ tuwaala la ñuy ñaan nit ñi ñu xam ne sàkku xam-xam munta ñàkk ci ab jullit ñu soññ xale yi ci taxawu leen ñu man ci dem ci anam ñu rafet ci njàng ma njàng mu am solo lay doon moo xam ne dana dëppoo ak jamono ah mënees na fa jëlit xam-xam yu bari kon daara la yu am solo yoo xam ne sëriñ bi nee daal mi ci soññee ci nit ñi ñu taxawu njaboot gi ñu man caa jariñu ci anam yu gën a rafete ah, ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah, kàddu gi xam naa du gudd waaye nag ah, li ci mënoon wax matoon wax lépp sëñ Cheikh Thioro wax na ko ci ndigalu Serigne Moustapha donc defe naa kon doy na sëkk ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp. maa woote la moo tax duñ mën a guddal waaye dañu koy sant sunu doom ji nga xam ne yàlla dafa dogal liggéey bi bañ koy teg ci loxo man ak moom ñoo ko doon commencé. bi état bi mayee sëriñ bi daara yi sëriñ bi xamni mom ci alxuraan lay yëngutu mu woko tek ko ci loxom ni ko dama bëgg nga saytul moom te nga dem ci sidi mu wutal leen fu ngeen ko mëna def mu and ak euh, sëñ Modou ay chemin ñew ci man ñu and wër dëkk bi ba gis man mën fuñ ko mëna def ni def ko kon nak bu ñu ba koy ubbi danañ ko sant ci taxaway bi mu taxaw ak pasteur bi nga xamni def nako di mom serigne mambar ndax doom boo ko juree mu mat la mu war a mat doo ko dégg ci loo lu mu war warta nekk ci lu mu war a nekk rek lay nekk doom jooju boo dee waajuram da nga ko war a sant kon sëriñ Mame Bara ñoo ngi lay sant ci turu sëriñ Moustapha mi fi sëriñ Bara di la sant ci turu sëriñ Abdou Karim mi fi sëriñ Abdoul Aziz di la sant ci turu Aziz Moustapha mi nga xam ni moo nekk sa bunt ci kër sëriñ Touba tamit di la ñaanal yàlla naal yi ngay naal di ko liggéeyal sama am sëriñ yàlla na la kàttanal te dooleel la ba yi ngay def yëpp ñu mën ko sëriñ Moustapha neen nag mi ngi woo njabootu sëriñ Baara gi yëpp ci bis boobu ñu ñëw teew si ko xam ne di bisub sëriñ Maam Baara bisub sëriñ Baara nee na ko fa teewit yàlla na la yàlla fajal say aajo ci darajay Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon sëñ Baara ñu ngi woo ñëpp ci bisam boobu muy ubbi ñi ma gën a kawe kàddu wax nañ ci di ñaan képp ko mën nga teew ca ku ca mënte teewit nga japp ci fo ci mëna japp jàppe ndax kenn telewut lépp ku mëna a sa poste dara la ku mëna a def dara indi matériel dara la ku mëna a ñaan ku man kon kenn telewut dara ku ku defut dara rek moom waaye kenn telewut dara kon señ Baara ci sa barké wajur wi tok Cheikh mustapha ci pencum sama mi ñi ngi ñaan bis ba yàlla ci ak jam te defal ñu tawfiq muy samedi inshallah rabbi euh, te mu mel nam daan mel bi señ yu bar daana te it mooy tool ba ku xam sa maam ak alxuraan xam ne loo ci def doyut yaan yàlla mel ni tawféex yàlla yàlla yóbbu ak jàmm te ñaam ca ndam sëñ Moussa am ci ndam wa maa saali allah bi axasis wasalaamaaleykum wa la barakaatu